jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk nat bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk sa waay maamaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek damay bëgg ñu yaata ci xam-xam aja kii di Baye Assane Touré borom Daaru Salaam di ambassadeur Moodu Moodu yi su ma neexit ak faatu faatu yi doonat ku ñu présenté te xam nañ ko bu baax a baax ci milieu bi nga xam ne mu ci yëngatu saa su nekk tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam waaye duñ fa jógee dinañ waxtaan ci actualité mu di xew-xew jamono am na loo xam ne gis na ko ci diggante kii di baa bi dox ci diggante Modou Lo ak Siteu waaye am na loo xam ne bëgg na ko di révélation yu am solo ndax du fekkee combat bi na taxawaat wala du taxaw dina ci yaatal mu di Balla Gaye ak kii di Modou Lo nga xam ne coow li bëri na li ma gis ci wàllu politique bi rawatina président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ndax ñu ngi liggéey wala coow li ba léegi leneen la dëxañoo ci biir mu gis ko dina ci yaatal bu baax a baax cheikh bi tey nee naa ku déglu di nga dégg révélation yu am solo ak xam-xam bisimilah ma bala a gën a wax. a mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim avant sibtuma anama xalaxanaakum habbazan wa annakum ilayna la tarjuhuna fatahalallahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsi karim wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tarkal jërëjëf Baye Assane Touré ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seeni set yooyu tànt ak dal acca euh, ku dalal laata may def leen damay jaar ci buntu bi niñ ko defee saa fu nekk yow nag ku la xam-xam la ci listixaar bu am solo ñëpp di koy wooyee lu wala seet yow nag sa seet moom ku bëgg a xam say gàllankoor ci looy dugg ndax dina sotti wala du sotti ah doo jokkook euh, kii di Baye Assane Touré doo ko réccu ñëwal ma ci sa listixaar bu am solo boobu. waaw alhamdulilahi rabbil alamina comme euh, yéen waa 221 people ñu ngi leen di ziar. Mm-hmm. Euh, di wax ne rek comme kër gi moom yaakaar na lépp ci alquran ci lay tegu ak ci njub. ak ci jaamu yàlla goo xamante ni dafay ànd ak résistant yoo xamante ni yu leer la mhm. képp koo xamante ni da nga nekk ci réew mi wala ci biti réew yaa xam góor nga wala jigéen nga mag nga wala ndaw nga soo ñu ooyee ñi bëgg a jëflanteeg yow maanaam buntu listixaar ci la ñu jaar ak yow mhm. seex dama lay wax na nag xaar dafa bari ñu koy wax te xamuñ sax lu muy teg tarka la listixaar mooy lan <clears throat> dañ koy tuddee nit koo xamante ni dafa bëgg a waaw dem ci barab mhm. wala mu bëgg a ut waaw su boobaa dañ ko koy listixaaral listixaar nag mën du génn tur yàlla ah. listixaar mantu génn alquran mhm. listixaar mantu génn tegtal yoo xamante ni dafa nekk ci ay xawaatim waaw ñun nag bi ñu ciy tànn na waaw boobu ramli la tarkal la waaw su ko defee ramli boobu dama la ñëwal na la dafa nekk seize bunt tarkal la mhm. mhm. fukki buntu ak juróom benn su ko defee soo koy listixaar yow doomu aadama bi doomu aadama bi ngay listixaaral da ngay xam biddiwam waaw soo xamee biddiwam da ngay xam tabbi xam mhm. soo xamee tabbi xam da ngay xam rawaanam walaay ndeysaan ci ñett yi ci ngay sukkandiku pour mën a gis doomu aadama bi dana jëriñu wala du jëriñu walaay maanaam dina am gàllankoor su suba wala du ko am mhm. donte sax yàlla mooy maye yàlla moo xam walaay ndeysaan wax na ne mhm. wattaqullaha wa yuhallimukum la ah, ku ma ragal ma xamal la walaay ndeysaan loolu ci ragal yàlla ci la la di xamale macha allah te nag seex jamono bu nekk mën a la man dañ may déey walaay ndeysaan lu wér waaw lu tax waaw mooy man alquran moo may tegtal alquran tarkal la bëri na ñu ma gis ñoo xamante ni ñu ngi ci internet bi wax ji rëy la ñuy wax waaye kenn du ci dellu ci alquran waaw xam nga lu tax waaw lu tax xamuñu alquran ci te innahu yaxlamu waaw jahra wa maa yaxfa wa ni yusrika lil yusra fa sakkari ina faati zikra tarkal la waaw yàlla xam na lu ci biir xam na lu ci biti lu wér nga wax te dara du ko fàddu listixaar képp kuñ koy defal mhm. ñun ci alquran ci si la ñu sukkandiku waaw képp koo xamante ni dañ la listixaaral waaw nga war a dem ci yoon boo xamante ni dafay am gàllankoor moo mel mu mel ni kayit mhm. nga koy uti waaw wala nga nekk bitim réew di ut euh, kayit waaw wala nga nekk fii bëgg euh, passeport wala visa waaw bëgg tukki ji yaa mhm. xam réew moo mënta nekk waaw suñ la listixaareel dama leen ne yoolu waaw sarax lañ la ciy wax nga ubbeeku macha allah sarax boo xamante ni nag waaw bu mëntu listixaar waaw su la ko waxee da ngay tëju te listixaar du génn alxuraan leer na léegi nag listixaar boobu noonu seex suñ ci duggee waaw dafa am ay bunt yu ñu jaar ndax alxuraan moo ñu ne wa atal buyoota mhm. min abwaabiha lépp jaare leen ko ci bunt suñ jaaree ci bunt bi rek mhm. su boobaa njub ak leer ak alxuraan moo ñu jox caabi ji suñ ko ubbee matériel yi nga bëgg rek su boobaa dañu xam yan matériel la ñu jox la ko ndax am na koo xamante ni un rek nga koy jox aturu deux waaw am na koo xamante ni quatre la am na koo xamante ni neuf am na koo xamante ni vingt quatre na am na koo xamante ni quatre vingt tarkal la léegi nag yow ki nga war a jox deux nga koy jox quatre-vingt-quatre fu mu jëm ah, waaw wax nga dëgg dangay jaxase pitaal wala li wér nga wax tey yoon bi dafa am mhm. bali linsaana xalaa nafsi basira mhm. wala wa alqaa ma assiru laa tuarit tarkal la lisaanaka wallaay ndeysaan tarkal la listixaar dama ne képp ku bëgg lu leer ñëwal fi wallaahi xasim billahi illazi laa ilaha illaa wa waaw ma ne ñun suñu listixaare leen nit ba pare ak boo mëntu nekk wallaay ndeysaan am na koo xamante ne dañ ko listixaaral barki démb waaw xam nga cheikh du ma sëri waaye dama la bëgg a wax rek. waaw mu ngoog de bagage jàmbur dina fekk ngay liggéey moom. man caaxaanu ma damay liggéey ci. ngoog de leer na nañ kay man damay liggéey ci. waaw lii lii lan la. waaw alxuraan la man doo ma gis man ku simple laa. waaye nag ku diis laa. waaw ndax li ma yor. <laughs> bàyyi ma nëbb ko jërëjëf bàyyi ma nëbb ko noonu bismillah xam naa mm. jërëjëf kooku mooy Baye Assane Touré di euh, borom Daaru Salaam di ambassadeur Modou Mouri nee naa leen ñàkk a jëflanteeg moom wóorut li saxaar moom si di borom da ko cee jox euh, xarbaax yu am solo. acca ca noonu nga mel ci noob. Mhm. gaa ngi fooy noob de ma ah saa waaj di ñëwee rek ngeen xam ne ku mën a noobal. waaw xam nga noot. <laughs> ñu bëri dama leen ngay gis ñuy wax. waaye Cheikh man nob bu may def ak sa xam nga 24 heures la. tarkal la. 24 heures la laa wax. muy benn fan. 24 heures ñi jàng tubaab ñu jàng wala ñu xamante ni dégguñ tubaab. sax mooy bis bi mu la. heure bi mu la ko def defalee rek. su dellusee su dellusee maanaam fu ñu nekk. ñu ngi ci mhm. ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci 8 ci guddi. Mhm. ma ne suba ci 8 ci guddi. Mhm. li nga bëgg day am. wala ndeysaan. tarkal noob nit ki. waaw balaa nga noobal force nga xool ko. am na ci solo. dellu at ca biddiwam ba ak ca rawaanam ba ak ca am ba. su ko paree nag su boobaa da ngay ñëw ci. benn aaya alquran waaw boo xamante ni da koy tegtale waaye bëri na waaw wal man li may wax du ma la wax naan samba ak demba ak sama gën ak maam gaan mm-hmm. sama mbaaru maam ma dé loolu du dama leen ne dañuy dellu ci alquran ci suuratu taaha mm-hmm. yàlla di ñu wax naan wal xaytu xaleeka mahabbatan mini mooy baatu mhm. mbëggeel waaw boobu de ci la bokk wali tarnoo ala ayni mhm. istamsi uxtuka fa taqulu ala addalukum ala man yakfulu mhm. cheikh man dama bëgg alquran te man ko walaay ndeysaan loolu de dafa moo tax soo may laaj ci mbiri xam-xam damay jox tout le temps gars yi nañ dem ci deux cent euh, deux cent vingt et un people waaw loolu de daal ñu xool ko suñ déggee kuy wax te maîtrisewul alquran maîtrisewul li muy def maîtrisewul lu muy wax walaay ndeysaan te mooy dëgg inaa nahnu nazal na sikkara wa inaa lahu la xafisuun ñun ñoo ko garantat dara du ci yokku dara du ci wàññeeku seex waaw nañ jub dañu dellu ci alxuraan dama ne non képp koo xamante ne yaa ngi nekk bitim réew waaw nekk ci nit waaw jigéen boo xamante ne dafa topp góor bëgg ci jot mhm. ne dafa loolu suñ ko defee jamono jii dafa am luy toj tiktok bi mooy dama ne képp ku bëgg jëkkër waaw balaa nga may oo téléphone waaw yaa xam marché bu la gën a jege waaw gël tàppe nga nekk ak yaa ngi dégg mhm. wala kolobaan nga nekk ak bitim réew foo mënta nekk pare nga nekk ak Allemagne ak Angleterre dafa nga jënd mbàjj laa wax mbàjj pour la nga jënd mbàjj gu nooy <laughs> bul jant bàjj gu ñagas de. <laughs> bàjj gu nooy ngay jant. perkal la ñu utaale ay parfum. ci loolu ma soo ma ooyee téléphone yow jàppal ne borom kër am nga ko. loolu de mooy sëy forcément am borom kër. waaw perkal la xam man ku neex li may wax ku neex nga weddi ndax fa man saa fal yu min fa mhm. man saa fal yu kufir inna axtadanaa li saalimin dafa leer waaye man lépp lu may wax dëgg la ndax mhm. ci alxuraan laa ko teg wa bil xaqi ansalnaahu wa bil xaqi nazal mhm. jërëjëf jërëjëf kon mu ngoog doxal njëkkanteeg waxtu wi jàll ci yeneen i ponk dama ñëw ci jaaro yi hmm. bari nañ de hmm. waaye sa jaaro Mm-hmm. ñàkk ko am wóorut mm-hmm. ndax njariñ la mm-hmm. bismillah waaw innahu min suleymaana wa innahu bismillahi rahmaani rahim ala taala alayhi wa ala waatuni muslimin man jamono bu nekk cheikh dama lay bëgg ah. lépp loo ma wax rek alquran mu ngi toog di ko toog ndeysaan loolu moo wóor tax ñun lépp loo xamante ne dañ koy defal nit ci jaaro jaaro soo koy defal nit waaw da del ci aat ci li woon muy listixaar waaw soo ko listixaaralee ba pare su boobaa da ngay ilimu baatin waaw na leer mhm. nit dana lijjanti kayit fekk dafa lépp dëgg fekk dafa tilim mhm. nit dana bëgg jabar waaw su demee ñi dàq ko fekk dafa tilim mhm. nit dana yaakaar waa yaakaar bi day tas fekk cat moo ko sonal léegi nag lu ci mëntu nekk suñ ci taxawee su boobaa balaa lay jox jaaro bi su boobaa tilim tilim yool ak gàllankoor yi dafa am sarax bu koy génnee wala cangat bu koy génnee bu ko defee ñu jox la cangat bi nga nekk ci lan wa saabiquuna al saabiquuna ulaaika al muqarrabuuna fi jannati nahim tarkallah su boobaa course bi képp koo xamante ni yaa ngi course am na koy raw waaw nag yow képp koo xamante ni yaa ngi ut nekk ak yow ci même gox wala ci même réew mhm. kenn du la fa ëppale te su boobaa mbiru mbiru mbiru këyit waaw dama la bëgg a wax ne la suñ la lis jaaro bi suñ la lis xaarale ba pare jox la jaaro bi waaw su boobaa danga gis ne soo nekkee ci junne yi nit ñoo xamante ni ñoo bokk benn bërëb bi ngeen di liggéey waaw kenn du la bañ képp ku la ciy xeex dafay am problème macha allah lépp loo xamante ni yaa ngi koy yaakaar yaakaar bi du tas kër goo xamante ni ñi takk naka nekk fa kër ah. danañ juboo kenn du fa mën a def liggéey mhm. ku la sànni korte dafay dellu ci moom macha allah bopp bi métti su dee jigéen la waaw koo jëkkër jaar bi day bi soo toogee vingt cinq jours man ngay am jëkkër loolu de leer na jërëjëf daal bëri na njëriñ njëriñ waaye nag li ëpp ñu koy gën a soxla mooy ñuy ut kayit mooy jaaru bi ko takk da nga am kayit jërëjëf faay nag kaay ma xamal la waaw xam nga ne jaaru bi dafa am luñ ko moñaaleeg muy lan noonu mooy dafa am dañ ko moñaaleeg ay xuddaam ba pare ci seex jaar bi dafa am ay cangat yu neex am doole de nga man sama cangat dafa neex waaw seex <laughs> seex man sama cangat mhm. sama canga dafa neex wallaay ndeysaan lu tax ma naan la sama cangat dafa neex mooy waaw euh, nga baal ma rek mhm. jëlal ma lii jóob euh, su ma leen waxee lu génn alxuraan wala ma def lu génn alxuraan waaw bëri na nag sëriñ su ñu bëri ñu ma gis mhm. ñiy wax ne ñoom mën nañu bind waaye ñoom mënuñu bind ndeysaan lii lan la Ah, li alquranul karim la kay waaw waaw alquranul karim la soo demee ci alquran mu ngi lay jàngal wa raddallaahu mhm. lazina kafaru mhm. bi qaysihim mhm. lam yanaalu xayran wa kafallaahu muminina qitaala wa kaanallaahu qawiyan xasisan tarkallah su ko defee yii dañ koy bindal doomu aadama bi nga xamante ne dafa am gàllankoor yi nekk ci moom ak ah. ay jafe-jafe tarkalla la waaw waaw am na lu muy àndat waaye dañ koy côté ndax xam nga lu tax waaw tax xale yi bi nit ñi di mhm. a toog ne ay sëriñ lañ te ba pare bind yi ñu jox yu ëpp dañ koy copier ah. na ñoo xamante ne ne ko bindal ma jomaay fay wallaay wax moo gën a siiw Sénégal jàng su jàng jotee nga xam su xam jotee moo tax jaaru bi képp dañ koy jox solo dafay ànd ay càngat suñu ko mhm. joxee da ubbeeku ci saayir ak ci baatin insha allah jëlal ma affaire bi sa ndandoo bi jërëjëf acca nee leen gëj gis bi nag am na lu ciy bokk ndax moom daam jot su duggee xalwa rek pour ngeen gis ko problème la mhm. ñëwal ma ci xalwatu yàppewu ma ko lu yomb de <laughs> xalwatu waaw alhamdulilahi rabbil alamin xam naa xalwatu sañ seex eh, dafa nekk ñu bari ñu ngi koy wax te xamuñ li xalwatu ah, xalwa soo koy dugal doom aadama boo xamante ni ñëpp dañuy dem ba ñàkk ci moom yaakaar moo xam dafa feebar wala dafa doon am amatut wala wala mu nekk ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ëllëg mu nga tribunal ëllëg mu nga koso lu wër fu mu mantu nekk ñu koy jàpp ba pare yaakaar di tas ëllëg mu ngi feebar mhm. jafe-jafe yu ko gàllankoor lu wër loolu su boobaa koy defal xalwa dañ koy listixaar waaw suñ ko listixaarale ba pare mhm. dañu xam lan moo nekk ci moom lu wër nga wax suñu xamee lu nekk ci moom. ndax hmm. dafa am koo xamante ni dafay jëflanteeg nit. waaw nit ku dëj ko xam nga luy dëj. lan mooy dëj. mooy dañuy jël sa tuur bi. waaw def ko ci dàllu càmmooy. waaw wala ñu def ko ci leneen lu uuteeg loolu. waaw yóbbu ko ci garab. waaw wala ñu yóbbu ko ci pegg dex. bokk te géej waaw wala ñu yóbbu ko ci garab goo xamante ne garab ak màngo la wala garab ak sibi. waaw ñu takk ko fa. Eh. su ko defee yow lépp gis nga dàll yu nu mu dëppee. waaw war wërsëg noonu lay dëppee. dama ne ñun suñ la koy dindi fi ñu toog dindi la ko. tax su boobaa suñ ko dindee mhm. automatiquement li nga njëkk a gis mooy sa wërsëg day ubbeeku am na ñoo xamante ni fu ñu toll dañuy mer dañu naan liggéey waaw ko tey sax surtout ment jigéen ñi daf ci am jigéen ñoo xamante ni xam nga lu leen tere am jëkkër dañ leen a dëcc mooy da ngay bëgganteeg nit nga sëyeeg moom benn weer ñaari weer benn at ñettaat mhm. mu tàggu yow def la loo xamante ni Mm-hmm. loolu su boobaa xalwa ci la ñuy jaar ak yow macha allah suñ jaaree ak yow ci xalwa moo xam entreprise nga yoroon mu daanu waaw moo xam danga doon seeg jëkkër mu daaj la waaw moo xam da nga bëgg a lijjanti kayit mm-hmm. moo xam wërsëg bi moo tëju waaw moo xam yaa ngi ut entreprise boo xamante nii place ba am ko waaye dafa am ay coow waaw mooy coow suuf mm-hmm. <laughs> sëñ Cheikh xam nga jomaay dafa jog di régler coow suuf waaw man 2018 ba léegi maa ngi régler coow suuf wala ndeysaan waaw képp ne dafay coow nit suuf suñ la dugalee xalwa loolu dafay dañ ba pare képp ko xamante ni yaa ngi ci biir réew réew mi fii bëgg ubbeeku mhm. waxuma la nag ko ubbeeku day am ay mille francs man sama càngat joxewul loolu walaay ndeysaan waaw man sama càngat mooy koo xamante ni da nga yoroon lu ne gàññ waaw nga toog muy jeex takk waaw wala mënatoo téye dara waaw su ma la dugalee xalwa da nga di laaj yow fooy jëlee allah te loolu ci alquran ci lay tegu lu wër incha allah jërëjëf waay ndax maa farat naa fi kitaabi min sayin ma ilaa rabbihim wala ndeysaan yusaruna tarkalla waaw lépp mu ngi ci alquran mu ngi ci alquran nag ku xamul alquran itam naka wax ja jeex na freng laay na mm-hmm. jërëjëf acca waaye noonu la ñu def yaatal ba léegi damay ñëw ci sa cangat bu solo bi nga xam ne mm-hmm. ñëpp dañuy déglu rek saa boo ci di wax ba daaneel mm-hmm. mu di cangatu am xaalis bi boobu gars yi bëgg nañ ko te wute waa alhamdulilah rabbil alamin xam <laughs> dama la bëgg a wax ne la càngat ñaar la. waaw dafa am bu ñu tuddee kaaraange. waaw am bu ñu tuddee ubbeekaay. macha allah léegi nag ci biir kaaraange boobu. kaaraange boobu dafa wara a cat. waaw te cettam dafa am ñaar waaw ulaayka xisbu saytaan alaa inna xisbu saytaan humul xaasiruun ulaayka xisbullaahi alaa inna xisbullaahi humul mufliwoon muy lan su ko defee bët bi nga xamante ni dafay xool doomu aadama am na si ñoo xamante ni seen bëti tooke la waaw wala ndeysaan luñ làmmiñ bi tudd mm-hmm. xamante ni luñ tudd dafay yàqu moo waral da ngay gis nit koo xamante ni dafay tëdd du mm-hmm. mën a jóg fekk dafa am ñu ko doon tëdd ci guddi gi leen tuddee ay nit dëmm ah. wala ñu ñoo xamante ni seen làmmiñ dafa am tooke wala ndeysaan ku mu mëntu doon waaw suñ la defalee listixaar ba pare waaw ba jox la cangat bi waaw su dee mbiru kaaraange kese la waaw li nekk ci yow ba pare seex man sama cangat bi ma lay jox mhm. du ma la wax naan <laughs> dafay dañ gannaaw suba gannaawaat suba waaw fi nga ko sangoo balaa ngay tëdd waaw am na ñoo xamante ni suñ tëddee sax wala ndeysaan am na ñoo xam ne suñ tëddee nii waaw pour ñu nelaw mën nañu dem ba cinq di matin duñ nelaw wala ndeysaan ndax lu tax mooy xalaat ji nekk seen bopp yi ah. ak liggéey yu bon yu ñu ne def moo tax man sama càngat boobu benn la ci mooy kuñ ko jox da ubbeeku macha allah beneen bi mooy mbiri ubbeekaay am na ci waaw am na càngat boo xamante ni suñ la ko bindilee ba pare waaw càngat bu neex dama lay wax ne demal nga uti parfum misk ci yaa ngi dégg waaw beneen bi nag dama koy côté am na ñoo xamante ni damay a sàcc ko d'accord yaa ngi dégg mhm. ko defee am na fooy dugg waaw am na fooy dugg foo xamante ni te li ma koy ràbbee parce que xam nga ne man rek maa mën a dem ci alquran aaya bu ma jot dugal ci Muhammad ba aaya bi jeex ba saar bi jeex Allah akbar tey xam-xam aaya bu ma dugal bu ma jot dama ci dugal Muhammad kooku mooy Alam nashrah laka sadrak wallaay de yaa Muhammad wallaay booba danaa xan ka wisraak wallaay ma def yaa Muhammad allasi anqada saxaraak ma def yaa Muhammad wa rafana laka sikraaka yaa Muhammad fa innama al husri yusran <laughs> yaa Muhammad innama al husri yusran yaa Muhammad fa isa faraxta fansab wa hmm. ila rabbika farqab yaa Muhammad tarkalla da ngay ubbeeku gis nga xadijatu bi muy jox jël marchandise bi waaw di jox yonti yàlla Muhammad waaw muy dem ca marché ba di jaay mhm. fekk ñëpp lal ca ker ya mu toog ca naaj ba ker gi ñëw keral ko waaw te kenn gisut fu mu buddee ko dañuy toog toog gis ne ker gi moo buddeeku ñëw fekk yonent bi fu mu toog mu keral ko te du parasor waxuma dem def parasor de walaay ndeysaan ma ne innal lasina mhm. yatluuna mhm. walaay ndeysaan ma ko joxee <laughs> en tout cas li ma la bëgg a wax mooy waaw fii ci Daaru Salaam dama la bëgg a wax ne la lépp loo xamante ni nit a ngi mhm. ci xam-xam ak ci njub mhm. soo ñëwee fii incha allah suñu la ko defalee tàkkal da nga tëju da nga ubbeeku waaye nag Cheikh waaw waaye dinaa la wax lu neex muy la mooy jamono jii sama spécial waaw këyit la woon xamoon nga ku gi baax waaye nag dama am loo xamante ni lu gaaw lu jokk ma bëgg ciy dimbale nit ñi waaw balaa sax macha allah tànn naa cinq cent personnes yoo xamante ni danañ am jëkkër ku ma ñëwal tarkal la mooy képp ku ma oo képp ku ma oo mur yóbbu su duggee képp ku ma ci oo tarkal la cinq jours soo ma ooyee waaw li ma lay wax soo ko defee di nga am jëkkër tarkal la incha allah mu goog jërëjëf kooku mooy xaritu ambassadeur Modou Modou yi wala su ma neexee ma yokk ci faatu faatu yi war naa mhm. mën a nekk mhm. jërëjëf mhm. acca ñu dox ba léegi yaatal néew kàttan moom ku bëgg a sëy waxtu yu am solo simili yu am solo. waa xam nga xam nga néew si ñu koy joxe yu bëri ñoo xamante ne xam nga nit. waaw force nga xam garab. mooy garab yi ci àll bi nii. loolu solo nga wax. garab mooy jëmmi yàlla. wala mooy jëfi yàlla. Mhm. alquran jii ngay jàng mooy wax yàlla. waaw. nag su nekkee maîtrise wu alquran. waaw waaw comme maîtrise wut waxam nooy maîtriser jëfam. waaw ah, lay wax lu lu nga wax. garab gi ngay gis ci àll bi. alquran moo la koy wax. Ah, lu dee alquran daf lay wax mu ne laqad radiyallahu mhm. anil mu'minina is yu bàyyoo naka taxta sa jara. Mhm. maanaam baatu sa jara suñ ko waxee mooy ker. ker waaw léegi nag ker googu noonu lan la mën a indi walaay ndeysaan kuy def ker rek mooy naaj bi dafa tàng ñëw toog ker képp koo xamante lekk da nga néew kàttan mhm. lekk bi ngay lekk mën na koy waral waaw mhm. Mhm. wala da ngay toog di foyee sa bopp waaw wala da nga am jabar jabar boo xamante ni yéen ñaar seen rawaan yi àndul wala yow sa jëmmi bopp dañaa def takk xala wala ñu liggéey la liggéey boo xamante ni mhm. dafay dem ba di la semmi wala ngay toog sa yaram bi di tàng di diis wala yitaa da ngay toog ba càgg sa tànk yi di tàng waaw mhm. na sëy ak jëkkëram waaye su ëmbee day tuur ndeysaan wala dafay toog ba càgg naq bi dafay faral di métti mhm. wala mu ba jàpp ndigile su ko defee loolu mbiru rawaan la waaye su dee góor la góor benn buuti la amee su ko defee su nekkee ne mbiru àndaale la mën na tëj mën ñëwam bi mu tuuti waaw waaye li ci gën a yéeme mooy suñ la ko fajalee ba pare mbiru néew kàttan mhm. dañ koy yokku tarkalla te nag yokkuñ ko ci ay ñaambi de mënuma dara mooy moo gën a wóor dara amul de ma ne yokkuñ ko ci ay ñaambi ah déedéet ñin ci alxuraan ci lañ koy yokk <laughs> yokkoo ci ñaam ci alxuraan lépp ngi ci alxuraan xam nga lu tax xam nga fu ma koy yokkee waaw dama wax nga ñëw wala ni ma teg kaamil bi nga toog te balaa ngay jog lay yokku de allahu akbar yusabbihu lillahi waaw maa fi samawaati uh-huh. wa maa fi ardi malikul qudus aziizil hakiim mhm. wallazi baasa fi lumina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihim wa yusakkihim wa yuallimuhum mhm. kitaaba wal hikma gis nga wal hikma waaw dégg-dégg lay laaj nag tarkallah wa in kaano min qablu la fii dalalin mubin wa aqarina minhum lamaa yalhaqu bihim wa huwa azizun hakiim tarkallah waaw te nii laa yokkee wërsëg wala ndeysaan loolu da am na solo man dafa am yoo xamante ni du ma ci duggati mooy di dajale ay derek ay geenu nag ak waaw man alxuraan lépp ngi ci biir te man maay solution bi nekk ci 2024 bii bi te nag waaw xale yi bëri si sëriñ ci danaa leen noq waay ay waay mooy gis naa fi koo xam ne non xam nga <laughs> lu gën a yéeme ci nit mooy ku toog maîtrise o alxuraan jàngoo ba jàng jot toog ba pare dim bu boo kilifa diine wax naa ba ba jeex di dëggamu moo tax képp koo mm. xamante ne da def lu li sixaar képp koo xamante ne da ngay ñaanlu képp koo mm. xamante ne da nga bëgg sa mm. wërsëg yokku waaw sooy déglu nit ki su la waxul alxuraan lépp lu mu wax du dëgg tarkalla lépp lu mu wax du dëgg waaw waaw nag dafa am ñoo xamante ni gëmuñ dara mhm. dañu nekk ci nit yaa ngi dégg jaamu waaw yaa ngi dégg mhm. fekk intérêt moo maanaam seen intérêt personnel mhm. léegi su ko defee suñ fa génnee nag kilifa diine gu nekk dañ ko mbuboo tarkalla su jàng jotee mbubboo mbubboo la alquran te sooy mbubboo alquran na fekk nga xam ko waaw li ma leen di dégg daal mooy maa ngi leen di dégg ragal yàlla waaw lu am solo jub tarkalla waaw jërëjëf lii maa ngi koy dénk di leen wax ne yéen mhm. xam ngeen Baye Assane Touré ku baax bu baax tarkal la dafa am yoo xamante ni man du ma ci dugg mhm. man lu ma manut may wax ne ma ko tarkal la waaye nag alquran jii mhm. fii ci biir Sénégal waaw dama ne nit kuy dund teg naa la sama tànk ci alquran jaajëf waay acca euh, jot nga cee junj sax biñ de demee ci jaaro bi ak yeneen i point waaye il ñu waxtaan waxtaante mooy ñi bëgg a tukki suñ ko waxee rek xel yi dina jëm ci këyit yu légal waaw waaw xam nga surtout ñi nga xamante ni dañuy nekk États-Unis jamono ji dañuy sonn est-ce que xam nga ñi jaar ci <laughs> yoonu suuf bi mooy <laughs> xaw waxee ni micro waa wax ñoolu <laughs> wala asim euh, dama am na si ñoo xamante ni ah. man maa leen di génneel ay sarax tarkal la ndeysaan dañuy sonn wallaay ndeysaan waaye nag hmm, ngeen la yéen ñi nekk fii ci Sénégal bu nit jox ñaar dërëm na leen tabaxal leen ma kër ngeen koy lekk ñoolu ñu amee dafa metti am na si ñoo xamante ni si si roon oto la ñu fanaan ca tëdd walaay ndeysaan. ñii ci ren gason walaay walaay ndeysaan. sur ay sarde la ñii ci ay kër sëñ Touba ñii ci ay juma. walaay ndeysaan lu wér am na si ñoo xamante ni. Mm-hmm. cinquante cinq personnes dimbalal nañ leen ñu jot ñoom ñu jot seen këyit. waaw te green card lañ am. macha allah. Mm-hmm. dama la bëgg wax ne këyit ci réew mii. waaw ku may dégg ak ku ma mëntu dégg ku tëj saal ak ku ubbi. waaw xoolal internet ak ñàkk la xool internet. man maay pël wéer buy joxe këyit te du la fayeeku seex tarka la loolu lu jafe la <laughs> mën nga dégg lool déedéet man dama lay jox kayit waaw te du ma la fayeeku ndeysaan soo gisee rek ndax xam nga tax waaw euh, wala tastaroo bi aayaatihi mhm. wala bi aayaati mhm. samanan qalilan mhm. wa iyaaya faatiquuni wala talbisul xaqa bil baatili wa taktumul xaqa wa antum taalamuun man du ma ko bersa wallaay ndeysaan lu wér si li ma lay dimbale mooy ci alquran waaye dama la bëgg a wax ne kayit képp ku ci jokkoo ak ñun waaw dañ lay yóbbuwaat ca aslu ba ca lu njëkk lañ la waxoon lu am solo mooy listixaar suñ la listixaar la ba pare am na koo xamante ne xam nga lu ñu koy génn loo mhm. ñetti ñetti liibaru ceeb nga génnee ko ñetti liibaru ceeb même soo nekkee bitim réew na la am ku la ko génneel sooy xëy di dem am këyit am na koo xamante ni nag saraxam moom mën na ëpp lool waaw waaye su boobaa suñ ko xoolee ba pare dañu mhm. xam ndax réew moom réewum la wala ndeysaan tarkal la suñ ko gisee su ko defee mën nañ ko dimbale waaye listixaar bi su boobaa li muy njëkk a génnee mhm. mooy dafay génne doomu aadama bi ci jëmi boppam lépp lu nekk sa cosaan ba bis yàlla tey ko defee sarax mën na ko dindi wala am na koo xamante ne nag xalwa lañ koy dugal mooy xalwa bi nga laaj léegi teel ko kurus gi mhm. kurus gi suñ ko ko téyee yaakaar naa yow xam nga kurusu baasan kurus gi moom. man damay wax ne a dafa am kaane. dañ ciy noqe nag. <laughs> ndax ci coupe d'Afrique bi noq naa ci ay xale. lu wër duma ci ay mag. xale yi dama leen di noq mag ñi dama leen di. duma waaw ak ku bëgg a bi rek comme ko waxee wa isaa ba tastum. wallaay ndeysaan yi comprendre nañ xam nañ de. xam nga yow am nga am nga loo ci xam. <laughs> gars yi xam nañ nga jógee ko woon <laughs> góor nga jógee ko woon xaw ma fan. ñëw fekk fi. wallaay bu ko laay da fa leer de. barka la fekk la fi. wallaay ndeysaan du duma dama ciy duma. wallaay ndeysaan dama ciy ubbee waaw wallaahi ndeysaan yaa joojo maa joojo waxu min ku li yan su leen wax tarabal waxtu xàqu fa isaiya waaw man <laughs> alquran dama ciy def <laughs> jërëjëf ba pare képp koo xamante ni bëgg nga këyit nekk États-Unis nekk France nekk Italie mhm. nekk Espagne nekk Portugal ba ci foo mëntu nekk même ñu nekk Gambie ñi nekk fii bëgg mhm. këyit tukki ak ñu nekk bitim réew bëgg këyit waaw dama leen man dama koy joxe ci vingt cinq jours tarkal la jërëjëf waay seer waaw waxuma la ne damay ñaan mhm. man damay joxe laa wax loolu leer na jërëjëf loo ca yokkati moom ngoog jërëjëf ñu jeexale ci actualité mu di xew xew jamono mm-hmm. gaa yi naan est ñu mën a def ba mu taxawaat coow li mm-hmm. bëri na mm-hmm. doo sama roi empereur moo gën a taxaw Balla ak Modou Lo en tant que sëriñ moo tax may laajte nag ndax yow da ngay gis am lu lay wax loo gis nga fenn foo xam ne combat bi dina taxawati Cheikh laata ñuy jàll ci beneen Cheikh waaw ah Modou Lo Modou Lo xam nga man dafa am lu may dee combat bi dina taxawati ah. xam nga yow xam nga ne man dafa am lu may dee mu ngoog kay ay waay koy yow dafa am lu may dee Cheikh Cheikh waaw lu dafa am lu may dee wax ma waay te li ma dee nii ah, waxal <laughs> allahu akbar Cheikh liñ Cheikh liñ ko liñ ma dee garaaw na liñ la dee noon ay liñ ma dee garaaw na ci ñaar ñooñu luñ la dee ci Modou Lo Balla Gaye dafa am ci ñoo xamante ni waaw ñu ngi ci biir làmb ji waaw hm. ah Mhm. waxoon naa ko ci élection yi. waaw di ma ñaan ma bul waxati lool. wallaay waaye li ma dee nii. waaw ci la ji la. loolu lan la. <laughs> loolu lanati la. <laughs> Baye Assane <laughs> xam nga am na candidat bu ma la waxoon ci la ca ca ca ca. dafa élection yi leer na nañ ci élection yi ñu des trois jours xaw ma quatre jours ñu am lu ñu wax. lu wér bi candidat bi élection yi passé am lu xew. Mhm. ma ne làmb am na lu ñu ci dee. waaw te niroo na ak loolu. allahu akbar niroo na ak loolu. gis naa ko sax muy baax yow dee nga gisoon moom. gisoon nga fi dee de. gis naa ko muy bakk waaye daf doon ree dañu mujjee jooy ba tax nañ ci def attention ba nga di Modou Lo Balla Gaye combat boobu gis nga fenn fu mu taxawaate coow li bari na seen diggante nag fi mu ne nii waa ñoolu waaw ñoolu Cheikh waaw man li ma gis nii daf ma jaaxal te loolu su amee sax ah. dafay ragal ne ah. <laughs> dana yéeme ci si mbëri de nañ ko kaaraange na ku mu ci tooñoon na ku mu ci tooñoon kan ak kan maanaam xam nga bàyyi seen ko tooñ soo ko jégalu dañ lay daan rek waaw nga ne ci kanak moo tax man mbëri sax daanaka léegi. waaw li ma li ma gis nii. waaw. <laughs> am na ci mbër moo xamante ni nekkul góor. nekkul nekkul góor dafa yoom ci ñaar ñii ma lay laaj nii. ma ne. waaw am na ci mbër moo xamante ni nekkul góor dafa yomb. waxoo jàmm de. waaw loolu de lu rëy la. dafa yoom de. Ah. waaw ay waay kooku de waaw. xanaa li nga may laaj numéro baaxal de mu ngi doon ci suuf. li nga may laaj ku ci ku li nga may laaj dana jaaxal ñu bëri dama fee ah, taxaw ne am na candidat bu nekk Sénégal. élection yi su desee trois jours dana am ku dee. waaw loolu am na wala amul. amoon na kay. bu élection yi passé am na lu xew waaw. ma ne ñu ma won ci làmb jii laa la wax. Mm-hmm. niroo ak loolu dañ ma ko aay woon waaye niroo na ak loolu. <laughs> ba pare am na ci mbër mu ma ci gis koo xamante ni. waaw ñëpp a am na sax luñ ko solal. waaw allahu akbar ay waay la dëkk moom. Hmm. nag dinaa ko faj. ah déedéet te sax bu ma gis. <sighs> danaa jàpp kur dindil ko ko danaa ko dindil suba wala gannaaw suba su ma feexee dinaa ko dindil. foofu la ñu des. Hmm. Modou Lo Siteu coow li bëri na combat hmm. boobu. loo ci mën a wax. waaw Siteu Siteu Siteu moom na uti ay mbokk. na wuti ay mbokk. waaw Modou Lo dama daje ak moom ci àll bi. yow waaw. daam fu ngeen ca koo xeer. ay deex la ma xam ne bon sute na uti ay mbokk kon Modou Lo nekk ku kuy kuy perte kii bi de kuy perte couronne bi nga Modou Lo mhm. ji fobal jamono ji xaafis la mhm, mooy mhm, dafa dafa dafa maîtriser alquran Modou Lo mooy ñaanal boppam léegi ay deex la xam nga loolu ah waaw kon yéen <laughs> sëriñ yi nii nii nii yëpp déet Modou la Modou day ñaanal boppam inal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat wal xaanitina wal wa saadiqina wa saadiqaati wa saabirina wa saabiraati wal qaasiyina wal qaasiyaati wal mutasadiqina wal mutasadiqaati wa saaimina wa saaimaati wal haafisina furujuhum wal haafisaat wa sakkirina la kasiran wa sakkirat ahadallahu lahu magfiratan wa ajran hasima kon daal koop kiyam bi daal moom ku ku bëgg a jël couronne bi di nga wax leneen <laughs> du ci jamono gisagoo fu muy ñàkk du jamono jii de <laughs> jamono jii jamono jii ñuy wax mhm. xam nga am na sama benn photo boo xamante ni bi muy bëreek am ma seen waaw daan am ma seen man ak sama doomu ndey ñoo àndoon ñu ngi ko fekkoon kër béem ñing mu am lu ma ko déey. waaw dama ko ne man bu ma feeñ sa combat. waaw waaye nag suy bëreeg Eumeu Sène man Eumeu Sène laa faral. waaw man Eumeu sa sama mbër la. Mhm. xam nga bi ngeen ñëwee di ma laaj ci moom ak Sa Thiès nee naa mhm. leen ñoom ñëpp ay doomu Sénégal leen ndax man ñëpp ay ñëw ci man mhm. moo tax ma mën a jóg ne diw laay ñaanal waaye nag am naa droit faral ku ma neex waaw waay nag dama ne Siteu na ay mbokkam jóg waaw tey ndax ñaar. Mhm. mooy ay kilifa lay jëflanteel ba moom ba ci pare moom ay moom kilifa la waaw. waaw man nga koy yëpp nii ci wax. Mhm. <laughs> waaye da ngeen jëflante nga xam ne lépp. ba pare mhm. Modou Lo xam nga xam nga xam nga ngembam li lu ci nekk. waaw lu ci nekk. <laughs> ay waay lu ne ci ngemb Modou Lo lay. <laughs> man yeddaa buñ juutal juróom yoon. juróom-ñeent fukki yoon. lañ ko koy la ñuy bind tabar yi daa juutalal ko ko moom lay xoojee ngemb gi ba mu waw mu mu ngemboo ko wax nga lu rëy de moo tax ku ko laal da ngay booy yu bëri xam nga xam na lu ñu yaakaar gisoo ko ku ko laal rek da ngay teggi ku ci jàpp rek teggi ku ci ku sa baaraam na njëkk rek dafa mel dafa am lu la lakk allah akbar moo tax mën a la Modou Lo dafa yéeme beneen bi mooy li ma ci bëgg a xam am na ñu ma gis ñuy analyser ñu bari waaye xamuñ baatin waaw dama la bëgg wax ne la seex waaw li ma bëgg nga laaj ma dëgg-dëgg combat bi sax baax na waaw waaye Modou Modou yi bëgg këyit ak ñi nga xamante ni dañuy bëgg jëkkër dama la ci jox rendez-vous ne la yow balaa nga fiy ñëwaat mhm. danaa bind lim jox mhm. a bind dafa boo xam ne du ma mhm. si boo xam ne sutura rek ndeysaan te nag seex waaw bàyyi seen ñëwaat na wallaay acca comme ni nga ko defee woon ci politique bi foofu laa bëgg ñu ñëwaatee euh, président Bassirou Diomaye Faye ak PM mu di Ousmane Sonko ñoom fi mu ne li nga gis ñu ngi liggéey wala liggéey bi des na. waa ñoom leneen loo gis loo xam ne yaa leen koy. moytuloo ñu moytu ko ñu ngi ñu liggéey. waaye dafa am ci biir ñoo xamante ni. Mhm. dañuy yàkkamti. yàkkamti waaye nag dama la bëgg a wax na la. ba mhm. Bassirou Diomaye fay dafa am ay isi bu alquran ñu jàng ca pale ba. ku ko bëgg a yàq. Mhm. ak Ousmane Sonko yow yaa yàq ñoom ñaar kenn du leen tàggale. Ah, kon jéem leen a séparé moom na génn. mantu ne xam nga nu muy mel. Hmm. mu mel ni nga bëgg jël asamaan ci def ko ci suuf jël suuf ci def ko ci asamaan si. Ah, dina xam nga loolu mantu ne. waaw day doy waar trop sax. xam nga loolu mantu ne. dama la bëgg wax na la ñoom ñaar. Hmm. xam nga ñaar ñu comprendre. Ah. maanaam yow da nga dem ba comprendre Diop Diop comprendre la. waaw wala nga comprendre Baye Assane Baye Assane comprendre la. Hmm. dafa am sama benn kilifa xam nga lu ko benn waaye waxoon daf ko ne lépp loo dégg ñi la ko maa wax ci lu ñaaw lu man waaye yow itam lépp luñ ma wax ñu ne ma maa la ko wax ci lu ñaaw lépp lu xibaar buñ ma indil ci lu ñaaw mais xam ne du yow xam nga ñoom ñoom def nañ baaraas seen diggante Ousmane Sonko def na ñiy yàq sama digganteeg Bassirou Diomaye nañ noppalu man mhm. nañ leen bàyyi ñi liggéey wala ndeysaan nañ leen bàyyi ñi liggéey ñoom ñaar mhm. ñi ngi liggéey waaye liggéeyu état du benn weer du benn fan du téeméeri fan te ñoom ah, téeméeri fan lañ def mhm. nañ leen bàyyi ñu doxal yàlla dana feeñal kéemtaan te ñëpp jóg dem liggéey nag waaw loolu rek moo sax loolu kese la jërëjëf ñu bala nga tàggatoo waaw ñi ngi sant yàlla bu baax di leen mm-hmm. gërëm di mm-hmm. gërëm Diop mm-hmm. di leen wax ne comme yéen moom da ngeen may bett di ñëw di ma waxloo ci ñi nga xamante ni dañuy bëgg këyit ak yóbbu euh, lii rafet na waaye di ñaan ci yaa rabbana yaa xaaliqil xawaalimi kul mm-hmm. baynana wa bayna kula saalimi yaa rabbana anta tara maa qad jara mm-hmm. uh, uh, faxsim bi qaxarin man xalenaa jasaara yaa rabbana hajjil bil faraji wan najina mina dayati wa mm-hmm. di sant di gërëm di ah. ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci tolof-tolof ah. ñi nekk ci hôpital ñi nekk ci koso yi ñi nekk ci ay tolof-tolof ñi bëgg am ñi ah. bëgg ubbeeku yëpp dama leen wax ne bu baax bi ba Assane Touré la ba pare Cheikh man a xamal benn affaire man nekkuma sëriñ tarkal la waaw sañ seeti nga de waaw ñu ngi gërëm soxna daba comme ni ma koy waxee de moo ñu ñëwal lii tarkal la moo génn fii waaw moom moo génn fii soxna daba moom mu ngi fii ci kaas bi rek waaw ku baax la am problème ba pare en même temps moom may nañ la publicité bi moom <laughs> yow gis nga yéen samay waa ngeen <laughs> moom ci jëmi boppam waaw <laughs> dafa ñëw fii waaw bi mu ñëwee ñëwal na loolu rafet ubbeeku la bëgg waaw ma ne ko yow dema ñëwal rek macha allah waaw moo tax ku dem ci moom waaw euh, euh, euh, ah. yàlla dana ci def ah, tawféex na de macha allah dinaa leen boole ak moom mu ñëwal leen jërëjëf di wax na ñu ngi ñu ngi jéggulu ñëpp di leen mhm. sant waaye nag nañ waajal màggal gi waaw jot na de nañ waajal mhm. màggal gi barkalla salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf